bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokk yu guddi tey gi mooy guddik ñaar fukkeel ci koor gi naafileeg tay gi juróom-ñetti rakkaa la muy ñeenti sëlmal rakka bu ne faatixa benn yoon inna anzalnaahu benn yoon xul huwallaahu ahadun ñetti yoon ma baamu ko juróom-ñetti rakkaa raka bu ne benn fatiha inna ansalnaahu benn yoon xul wallaahu ahadun ñetti yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.